papa ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Medina TV tey ñu ñëw fekk si la fi nga xamante ne moo di rue 11 angle 22 euh, nga nekk gérant toilette publique yi nekk fii ci rue 11 bi papa ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga présenté waat ñi lay seetaan. soxna si ñoo ngi leen di delloo nuyu di leen ñaanal jàmm di leen dalal jàmm. ñu ngeen fekk tamit day bu ñëwee li ngeen leen wax mooy pour ñun suñ duus bii euh, luñ ko fi bàyyil yokkal na ko lanu wax waaye waxuñu lu ko fi jëlee waaw ndax léeg nga gis ko yor otoom day droité patron day droité euh, yàkkamti bu doon kon duus bi tey di nga gis loo xamante lii dina yéeme waaw mu dugg ci biir defaru defar boppam génn boo amee juróomi moom joxe bu ko joxee juróom dërëm yooyu ci la ñuy fay am ndox euh, di ci jox ki nga xay moo fi nekk di ko seera di ko seera di ko raxas di ko defar waaw boo ko amut mu bàyyi la nga dem xam nga ko kon kon lu rafet la fii li fi nekk ci ay nit mat na ñaari junne nit bis yàlla sàkk boo xoolee li fiy génn buñ amu kon douche bi tey dina yéeme dina doy waar lool te am réew nag jaadu na mu am public waaw mun munoo nekk cim réew ne benn public du fa am fu ñu waxee rek nga toj boobu public jël jële ko fa nit ñi am tubaranke ci mbed mi léeg nga si yoo xay da nga yéeme te kër yi boo duggee boo ñaanee am na ñoo xay boo leen ñaanee duñ la xam nga ñi kenn wóolootu kenn boo ñaan dañ lay nekk di la lay teel di la lay naala fii la xar yi jaar aw fii ba mujj am problème mën ngaa def loolu sa yéere boo génnee da am problème xam nga kon public kon baax na moo tax ñu seere ko nun ñëpp noo fi nekk nun ñëpp noo àndandoo di kaddu genn mun ku nu moom lañ bëgg waaw public moom da nga ko yokk waaye waroo ko wàññi amul benn réew boo xay di nga dem te amul public amul amul ci àddina bi la wax de réew boo dem rek am na public parce que public mooy dimal askan wi te ndax ñëpp ñoo mën am ay douche waaw man da ñëpp noo man a ñii dañ fee nekk dëkk fii ñii am na néeg ñii amuñu néeg ñii am nañ kër ñii amuñu kër te du ñëpp nag ñoo fu la neex rek nga dugg ci kër ne may leen ma ñu may la déedéet waaw ndax léeg-léeg nga am problème boo xaye am na ñoo xaye netti lañ ma dugg ci kër di ñaan bëgg tuur ndox dañ leen a ba dañu am problème feebaru saw saw waaw dañu génne deret ndax di ko téye xam borom kersa duñ mën a jàdd fenn saw foo aw ñële du foofu waaw xam nga kon xam nga loolu kon public moo ko gën public moo ko gën public moom yokk ko rek defar ko mu gën a euh, moderne moo gën waaye nekk fi di ko wàññi di ko yàq di ko toj ñi am problème tumuranke euh, wax dëgg yàlla kooku gënalu askan wi daal te benn réew boo xay amut public amut waaw nu bëgg daal ngeen luñ ci mën a jàpp defar ko bàyyi public bi public yi public yi moo gën luñ manti di deet ñu bàyyi public bi parce que public am na solo lool ci am réew am na solom cim réew askan wépp ñi fi nekk ñëpp loolu benn baat lañ ci benn bopp lañ ci waaw maase nañ ci loolu yàgg na moom xew yàgg na moom wax dëgg yàlla yàgg na te liggéey ko la ñaay la gi jëkkee la mais nag tey la gën a dëgër nag ndax Senghor daana wax naan euh, euh, euh, batiment sans fer cent temps bâtiment sans fer cent ans Senghor daana ko wax te loolu moo am ba léegi ciment bii moo gën yu bees yi ñu tabax tey tabax nañ ci yu bees yàq ko defaraat ko ba mu des bii bii boo ñëwee dara si ku ci ba léegi moo gën a dëgër yi nga xay yu bees yi ñu tabax waaw mooy batiment sans fer cent temps mooy mooy public bi waaw ku sangu daal boo amee fukki dërëm di nga fay ko amee juróom dërëm joxe comme li ma la wax léegi rek soo ko amee nga jox boo ko amut ba amoo ko ñëw jafa soxla te yoroo xam nga Sénégal rek ñu arrangé la amul problème demal waaw ndax ci la ñuy fay li ki ki nga xay mooy raxas ci la ñuy xewee ki nga xam mooy courant bi ak ndox mi looloo tax waaw lu mu doy doy doy waar yàlla ak nuy sutura moo ngi nuy sutural respecté nan ko lii sax nga gis nii takkuma ko tey nii damaa ko dama ko fu dama fuut sama bopp damaa fóot sama bos waaye man mu di ko fendali bu fendee dama koy takk man mesure bi moom wax dëgg yàlla respecté nañ ko baax a baax a baax a baax te yàlla ak ñuy surtaal nag benn gisagoo kenn ku ñu feebar parce que respecté nañ ko te dus booy dugg da ngay raxas boo génnee raxasu waaw lépp na ko wax dëgg yàlla ndax feebar moom nit ki kenn du ko gën a bëgg ndax feebar kenn bëgg ko sa bopp waaw nit ki la naa sangul sab a bëggal xam nga boo defee li da feebar te yow nga xam ko doo ko def ndax kii eh, defal lii mba doo feebar xam nga kook yow la bëgg yow lay jàppale gën yow mi nga xay yaa moom sa bopp nag kenn du la gën a bëgg sa bopp respecté nañ ko bu baax wax dëgg yàlla vraiment mhm. suba gi teel nañ ko nettoyé guddi gi nañ ko nettoyé suba teel dañ koy nettoyé raxas ba mu set def potol yëpp raxas ba mu set suba gee guddi gi nag ba nga xay ñëpp tëj nañ dañ koy raxas raxas ba mu ñu ba mu baawaan ñu raxas nettoyé ba mu set wécc wax dëgg yàlla vraiment mhm. am nañ taxawaay bu baax a baax wax dëgg yàlla yëkkati moom yàgg nañ ko bëgg a def waaw wax dëgg yàlla yàgg ñoo bëgg yi ko tëj duus bi jëlee nu fi waaye nag condition yi ñu ko tegal kon te yi ñu ko tegal moo normal wax dëgg yàlla nag ñu ngi ciy sant euh, monsieur le président Macky Sall di ci sant euh, euh, directeur stade di ci sant Seydou di ci sant di sant kii préfet wax dëgg yàlla jàppale nañu ci baax a baax a baax ne maanaam nit ki fu mu nekk ñun def nañ fi 40 cinquante 50 am nañoo ñoo xëy cent ans lañ fi def nit ñu jox ñu suñu place jox ñu ko norme yu leer ak kayit yu leer noo ko tabaxal suñu bopp nekk fi di fi tati yor fi suñu njaboot li moo yor këram waaw li fi gone tuut moo yor këram bi ñëwee bëgg nu ci jël yoo xam normalul dañ ne leen ñooñu kilifa yu ma wax dañ leen nit ki boo ko jëlee mu yàgg ci barab da nga koy teg ci norme na ngay waxtaan moom ba d'accord ak moom seet foo ko jox dee dommagé ko wala nga dee dommagé ko ba xolam sedd bu ko defee ngeen bu ngeen ci d'accordé boobaa nga jël amul benn problème nun ma ñu bën ci leen ndax buur moom moo moom lépp mais nag niñ ko teg ci aw yoon.